ëpp ñu leen xal ñu leen bëgg Sénégal je pense que lu war mooy ñu jox leen d'abord cër jox ñi nga nekkal cër mais jox sa bopp cër te loolu je tenais à le dire avant. Mm-hmm. man nak du ma président Macky Sall mi nga xam ne day toroxal jigéen moo tax am na détails yoo xam ne du ma ci pour répondre ma sœur ma ma ma Marème Babou euh, ndaxte li may li may wax toroxal jigéen mooy que tey jii nga jiital jigéen bu mettee nga woo ko moom rek la ñuy gis. bu demee ba séddale yas parce que xam nga ni dafa am principe boo xam ne ba muy jóge États-Unis di ñëw di la jàppale moo ko tax a bàyyi lépp lu mu yoroon congé non payé ñëw ànd ak yow xeex tous les directoires de campagne moo ko jiite ba tey ji tous les directoires de campagne bi muy wax ba mu ñëwee ba léegi moo koy jiite nga ne ko demal assemblée Bon, fa après yow la tête de euh, présidence à la ñu waxante wax euh, pourtant bon xam nga mën nga ma permettre comme néna sagal n'a la quand même xam nga pour les sénégalais la xam nga pour pour respect. Ah, non ba non dama rek ndax na bi Touré président di ne ma jox question la rek ko <laughs> ok donc li wax ko par respect aux sénégalais à la dame je ne vais pas te répondre en rentrant dans les détails parce que moi, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Franchement parlé. <laughs> Mais est-ce que vous n'allez pas trop ah? loin quoi ah? Vous n'allez pas me rabaisser à votre niveau. Non non, non, ça veut dire moi non, non, attends, mais parce que Non, koy Non, je suis scandalisé il m'a traité de tous les noms. Ça veut dire depuis tout à l'heure, j'entends non non, mais j'entends. Non. J'entends euh, Ça veut dire Xam nga Je ne peux pas me rabaisser à

mooy li muy wax noonu amul ben fekku ci parti bi parce que ñun ba ñu nekkee jom jóge jom ñoo maire jóge maire ñoo COJER ba tey ji ñu war a ne Macky Sall du fi amee troisième mandat parce que bi sénégalais yi jox euh, nguur gi looloo taxoon ñu jë teg ko fi amoon yaakaar ci mom que ni dafa am ko doon wax 3 troisième mandat ñu jappone c'était une injustice sociale c'était di loo xam ne da nga ko waxoon te dafa rafetul ci ñun ñu yaré moy kaddu nga jox ko nga war koo sàmm tey mu bëgg ñuko imposer ñi nak nga xamné c'est le comité stratégique des investitures ñi rek mo leen tax a et c'est très dommage franchement c'est très dommage parce que moi je suis très un peu mal à l'aise en parlant devant une dame comme ça parce que tamit moom en train de nous parce que d'abord, ne le 12 ak léegi

madame pour ça me permettra vraiment me répondre à la question. de Bâle qui disait que constance mais nous aussi nous nga que nous ñun tous dañoo xel di xalaat di comme madame Aminata son principal problème là elle l'a toujours dit c'est que le troisième mandat. Mais pourquoi chaque jour fu toogee ci ay télé point de presse vous ne lan pas des conférences de presse Il y a un point de presse sommes def points de presse ci campagne c'était des c'était, c'était. presse. jamais dit point de presse nga conférence de presse j'ai jamais dit j'ai jamais dit. point de presse. Mhm. j'ai dit conférence de presse. c'était pas des conférences de presse on est d'accord c'était une conférence euh, une conférence de presse laissez-moi expliquer. en fait Gary j'ai dit une conférence de presse. C'est quand la personne parle et laisse qu'on lui pose des questions. C'est ça une conférence de presse. Un point de presse, c'est quand... celui qui est quoi. Non, non, on n'est pas sous des cours de communication. J'ai fait à la permanence quand une des journalistes demandait à Mme Aminata Touré lan le irrité le président de par rapport à maintenant conférence de presse de par rapport à la campagne.

waaw ci ngoram ci sàmm kàddoom kooku mën a toog nii man njabootu Macky Sall la ba léegi nangu wax lu wax laay wax maintenant non man dama koy assumé dama ne ba mu ba mu jàppee ba mu ba mu fa jëlee parce que xam na ni d'accord ci fa mu jëm lu troisième mandat yéex ngeen a génn parce que yàgg ngeen xam ne du ngeen d'accord ak moom fi mu jëm lu leen fa téye woon eh, xam nga non ngaari euh, bul ma bul ma boo ma indesté wala nga interpellé ma dama lay répondre yéex ngeen a génn parce que yàgg woon ngeen a xam fi mu jëm lu leen fa téye woon waaw Marème ok léegi bul ma interpellé boo ma interpellé droit de réplique mais dinaa jël sama temps wax li ma mën a wax parce xam nga li ngay def nii c'est de la comédie c'est que de la comédie li muy def nii moom gëmu ko sax ah. xam nga li ngay wax sax gëmoo ko parce que wax naa la ko léegi nga li nga xam la non gëmoo xam naa wax Sénégal yi ñuy seetaan ah, ak waa ah, bien sûr mais dinaa jël mais le débat euh, c'est pas nous

Euh, troisième mandat question boobu nag da ko wax fépp moo ko conseil économique social environnemental je ko jëlee fi nga xam ne dañ ko ko waxoon te diggoon ko ko ñu dem ba dernier def yëfi wor ndax leneen wor wor ba parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu gis ñu fallait un président de l'Assemblée comme ça il est juste je même pas les traites te ce qui s'est passé c'est du traîtrisme en ah réalité c'est ça y a pas de mot c'est pas un gros mot gros je l'ai dit ce qui ce qui s'est passé ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. la wax man je dis fii laa ko wax ma ne Macky Sall. waaw mais non fii fii fii nga ko wax déedéet xam nga. non xam nga fan laa laa leen di nag. non xam nga luñ dul nangu. wala ah responsabilité. dafa am. Mhm. foo fekk. Mhm. ñu nangu. Mhm. Sénégal yi du ñu seetaan depuis des années ñu toog. non kon yàlla boo xam parce que boobu xam nga di ko joppante ñu ci arène arrêtez ça gars yi. wax comme ay responsable ñu respecté Bouba. ah non non mais donc ay ay mais Bouba tu mens ay ay ay sàcc nga ay ay traître nga ñu toog fii di ko ak dugg. non Bouba mais mais Bouba mais li muy wax daal c'est important. mais non duñ ko nangu. ak fausse bi mais duñu nangu toog di liggéey fii ci télé bi ñu toog fii ku nekk di wax moo bi gën a métti tamit. saaga rek sàcc non dëgg la. fii nga toog diñ kan sàcc. non non dama ne dama ne moom voilà. je suis désolé mais non non non non non mais non. may ko mu yeggali may ko mais mais vraiment C'est sàcc. c'est que j'ai à dire c'est que j'ai à dire pour les Sénégalais. c'est pas pour Macky Sall c'est pas pour les voilà man Macky li may wax tax ma ñëw fi mooy éclaircir la l'antenne des Sénégalais. li wax début bi moom laay wax ba ce qui s'est passé la question d'amnistie rien d'autre que de la diversion politique un deal de Macky Sall parce que fi mu teg bëtam mooy 5000 voix.

à ce à ce rythme Mimi Touré ne risque pas de perdre son siège de député ñi xalaatoon ñu tax ñu impeach ko. Mhm. impeachment. ah impeachment. et la preuve en est que la députée des xool li nga xam ne bu ñu ko tegee mu nekk njëriñu Sénégal <coughs> am na njëriñu Sénégal mu teg kon loolu kooku du question siège te du ma tee ma ñëw parce que pare gu ma ci li la wax dama bëgg. Uh-huh. suñuy yi parce que lii ñëpp mën nañ ko. amoo lii nekkoo lii mais yow koo xam ne fanaan ak moom xamoo fu mu dëkk camarade de parti la permanence ngeen daje nan nga a xamee lu mu amut ak fa muy mil donc mais <coughs> dañoo nekk loo xam ne fa la Sénégal yi di xaar te bu ñu amatee occasion nañ ci wax ñu jàpp ñu jàpp jël au sérieux a compris tout simplement gëmu ko sax ndax la laa demee la fi teg lu ne weng mooy amnistie bi ñuy wax te ce rien d'autre que la diversion politique xam nañ ko dara wundu daara daara nag wundu ko lu dul nu muy récupérer euh, Karim Wade on entend même premier ministre ndax man li ma ko wax li ma wax dama ko gëm Khalifa Sall bi muy wax man dama gëm ni ah xam waxuma par rapport ak waxuma par rapport ak yéen s'il te plaît ah. Macky laa wax ah. moom l'initiative man non non xam nga il faut bien danga ma ci dugal ne man non je mais fi mu jóge fi mu jóge laa wax waxuma moom Karim kan mooy proposer premier ministre kan mooy waaw moom laa wax. am nga droit ah, non dama ne dama ne maak yi lu muy commandant ma nga ca parce que fii lañ dëkk am nañ leen renseignement xam nañ maintenant man li ma bëgg a wax. Euh, mon frère xam nga yow aussi yaa ngi tuuse da nga doon wax ci Amina Touré uh-huh. ma nangul la man aussi bu may wax ci téléphone nangul ma ko tamit xam nga bi ngay wax boobu andi woo benn preuve bon non dama lay wax rek non dama ne boobu ba léegi yaa ngi wax ci madame Aminata lu am lu amul ma nangul la ma jàpp ne amul ma nangul la man aussi bu may wax ci Karim Wade mhm. nangul ma ko ndax sénégalais yi dégg ma parce que c'est pas toi qui du yaa ma intéressé mooy ab ab Macky Sall bu mënee nekk koo xam ne moom mooy def politique de la nation sénégalaise. Ah, s'il vous plaît s'il vous plaît tu dis que ce qui intéresse Macky c'est les ça veut dire que le n'aura pas de mais s'il te plaît question pour les chroniqueurs est toujours à ce propos. te man yaakaar naa ëllëg sénégalais lu ko leen gën a ñor tey du waxi amnistie mooy waxi dund gu seer gu metti yi ñu nekkee mën na barki dem luñ ciy jógee leneen li mooy leneen leneen li mooy mooy li ma ko wax man su ma amee la gentillesse et l'aimabilité ñuy wax ci madame Amine Touré ma koy ma leen di déglu te xam ne amul ndax gënuñ ma koo jege hmm. ñoom aussi bu may wax <coughs> <coughs> nangul ma lool daal <coughs> mooy euh, am na ko ko fi wax mu ne euh, madame Aminata Touré dafa waxul ci troisième mandat bi depuis que mais ah dañ ko yóbbu conseil économique wala di

non dafa ne mom mo ne Macky Sall xam nga waxagul ni ni nii non c'est toujours le ni ni nii non non xam nga waxe mooy li ma la wax rek xeyna yow yaa gëm waxe Macky Sall waye Sénégal yu bari mëna mënatuñu gëm waxe Macky Sall ok légui xam nga lan la leen di laaj wuyu len ma mais xam nga lan la leen di laaj ça intéresse toujours s'il te plaît fofu lay lé oui mais nga ngaari vraiment non attends effectivement s'il te plaît c'est très important mo ko moy problème bi effectivement lool la dafa ñaaw nak fi mu nekk ni nga mobiliser tous les Sénégalais tous les moyens tout ça nga ne euh, euh, traque des mal en un certain moment nga mën a xëyaat rek nit ñi amnistie comme ça parce que contexte bi la ko obligé dem nga dem ba politiquement xamato fay def schéma nga schéma ba schéma sa bopp xamato nooy def nga ne léegi naa teg carte ok légui yéen li mu leen bëgg laaj chroniqueur mais très rapidement qu'on puisse dépasser très rapidement mais Badara vraiment Mos Mos Charles est-ce que à ce rythme Mimi Touré euh, parviendra à diviser la paire mais il a commencé à diriger à diviser. diviser.